Génération FM. Génération FM. the best radio. Génération FM. tontuwante ci loolu noonu euh, fi nga jeexalee rek euh, fofu lay commencé parce que boo fi jëlé wo fi xam-xam <laughs> dina ma xawa jaxal ndax tamit tu réponds pas aux questions je me rappelle ce débat passé yaa ngi doon wax Pape Cheikh euh, Cheikh du moins xawma Pape ne yow tu réponds pas directement aux questions on te pose une question tu réponds autre chose après vous voulez dire des choses yo xamantene moy que je veux te dama veux ne tamit ak nu euh ay ay nit ak ay responsable ñoo ñuy déglu dafa am mo yo xamantene war nañ ko éviter ci débat kon nañ le respect ay yenn euh, je pense que jaruko ma Je je wat ci benn mbir gis nga opposition surtout un pays démocratique un pays une république une grande république comme le Sénégal mënta une opposition opposition il faut am mais opposition bo xamante opposition avide de pouvoir la opposition bu amul un programme lu di di di opposition politique politicienne donc la fi nekkee talul lu est Macky Sall souba? Macky Sall ngone ay dil lay def ak ay tracé penser que tout tourne autour de Ousmane Sonko mais c'est pas ça tout tourne tout ne tourne pas autour de Ousmane Sonko Ousmane Sonko opposant la am na fi yeneen moroom opposant am yu fi nekk bayre bu mu am nag ba bu génnee nit ñi topp ko ñun ñi nangul nañ ko ko amul problème ndax comme ni ma ko fi waxe woon rek yàlla mooy fal mooy folli kay nekk nguur yàlla bind na ko ba pare ngeen xeex ko ngeen bañ a xeex bu fi ñetti nit sax doon des te warta nekk buur te ñetti nit yooyu yépp ànd ak moom de day day rek mais kenn du voté du mës a nekk buur kon loolu da ngeen koo war a nangu wàllum duudu ka nag ah sama nijaay gi nawloo nañ ko de waa Ziguinchor nawloo nañ ko daldi nag yonent bi sax sallallahu alayhi wa neexul ñëpp te def na fi loo xamante ne yéen mus doo leen sañ a taxaw ne yéen seen leader boobu noonu def ko def na ko fi. te pourtant yéen a ngi bind ci seen programme yooyu noonu ay don yoo xamante ne moom mu koy def te nekku fi benn autorité boo xamante ne tolloon na ak maire Ziguinchor ngeen ne maire Ziguinchor dañ koo téye moom tëj nañ ko fii tamit tiw ko de. bañ ko fi tëjee ak léegi matul at kañ la falu maire Ziguinchor ba mu faloo ba ba bañ koy tëj est-ce que am na lu mu fi def defu fi dara lim fiy nekk sax d'ailleurs bëriwul li muy nekk Dakar moo ëpp léegi kon kon kan moo ko teree liggéey wala ci diggante bii rek la ñu waroon liggéey comme que yéen sur 5 ans projet bu 5 ans yéen 2 ngeen di jël di ci def ay investissement di wax ci ay affaire yoo xamante ne ay projet yoo xamante ne doo wër fenn ba gis ko amul leen benn bilan amul leen dara lu ngeen di justifier seen acte yi gis nga waxoon nga fi tamit affaire kii Mimi Touré dafa am lu mag ñi doon wax gis nga ku xëy suba ba ngoon di ñaanal nit ki naan dafa baax dafa dafa dafa yaru mu dem ba guddi nga toog naan kii de baaxul war nañoo xoolaat sa ngor fu mu toll. boobu nit war nañoo xoolaat ngoram fu mu toll te gis nga politique du saaga du xaste du toj du yàq du du du du di di diffamer wala di indi di teg ci nit ñi ay deru nit ñi ay wax yu ñaaw mooy tax nga àgg fi nga war a àgg delloo siwaat leen seen xel te ngeen xam ni ñun ñëpp ay sénégalais te Sénégal Sénégal moo ñu ñor ñun xam nga tey lan la ñu war a góorgóorlu opposition comme pouvoir ñu jéema a ni ñu jëmalee réew mi kanam wàllum dogu nag na ci ñëpp génnee seen bopp waaw na ku ne tal sa bopp ndax man nee naa yow mënoo yow yow Pastef moo ëpp problème ñëpp tey fii ci Sénégal koo xamante ne yow par force nee nga da ngay imposer sa candidat kookoo ëpp problème sachant que l' état nul n'est au-dessus de la loi état état rek lay mës a doon et l' état restera toujours debout si Ousmane Sonko ne doit pas être candidat il ne sera pas candidat et l' monsieur ma rappelé la ko c' est pas par rapport ak délit bu mu def de.

kon loolu na ko teg ci suuf te booy waxaat tamit ci genre yooyu noonu na nga gëstu ba xam nit ki ngay waxal ban genre nit la nga nit la ba pare gis nga non si parce que gis nga humilité nit danga koy àndal da ngay ànd ak nit da ngay humble nit da ngay wàccee sa bopp fii kenn mënu fee jaay kenn xam-xam kenn ku si nekk danga ngaa natt sa sa bopp ba toll ni nga war a toll nga soog a ñëw fii nii kon lu ñuy wax rek na doon loo xamante ni dëgg la na doon loo xamante ni bu ko yi déggee dinañ la si naw mag nga kilifa nga man aussi dama considérer sama bopp comme kilifa j'ai 25 mais tollaguma fenn fuma nit di yabé kon buñ togué di waxtaan dafa am mo yo xamante dañ ko war di éviter. Mm-hmm. di di di pareeguma <laughs> paréguma par rapport ak euh, mairie bi. Mm-hmm. paréguma ci dé 300 mm-hmm. millions yi ngeen doon wax niki dañ ko détourner da ngeen dama bëgg ngeen teg ci table bi ngeen expliquer nit ñi parce que yéen vous prenez la bonne gouvernance transparence n'est-ce ngeen di prôné di ko xeex ci kaw bala ngeen ko xeex ci kaw wane leen ko fii nii nee ngeen détournement am na fi génn leen ngeen wax nit ñi détournement boobu fan la amee nit ñi ñu mën a xam nan la ñuy wax ak ancienne équipe municipalité bi te yen bu fekkee seen maire bi nekk fi waa léegi lan mooy jëriñu yeneen yeneen yeneen yeneen kii yi adjoint au maire yi kon yéen bu fi maire bi nekkul rek léppay taxaw ndax ba mu fiy nekk sax dara doxul kon tey bu fi nekkul ay taxaw mais bàyyi leen caaxaan yi bi te ngeen def loo xamante ne nit ñi dinañ leen ci naw ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar kon lu waay di def rek na doon loo xamante ne lu baax te waxu xam-xam moom ngir yàlla teg ko ci suuf ndax fi mu ne dañoo wàccee niveau bi bu baax a baax. voilà. Génération FM. Génération FM,